asalaamaaleykum mbokku internetu Dakar Midi ñu am mbégte ak kontaan bu baax ñaareel ñu ngi topp leen seen actualité bi nga xamante ne tey mooy mbëkk mi ñu gën koo xam ci li nga xam ne mooy gaalu clandestin ñaareel toujours duñ ci taay di ci waxtaan yi nga xamante ne mooy euh, ay porte ay kilifa yi nga xamante ne tamit ci réew am na leen bàyyi xel parce que nekk na loo xamante ne tey lu ñaaw ci askanu Sénégal la ak ndaw yi nga xamante ne ñu ngi ci génn àdduna mais ñu bàyyi sëñ Mbacké mu nuyoo ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaare waaw ñu ngi leen di delloo nuyu yéen waa Dakar Midi bu baax di leen sant bu baax te di leen encouragé tamit ci liggéey bi gis nañ liggéey bi fi ngeen koy jëmale bu baax a baax màggalu Touba gàmm ak yi jàll yëpp ñu ngi koy suivre bu baax ñu ngi leen ñaanal bu baax a baax yàlla gën leen a jàppale ci liggéey bi waaw. jërëjëf sëñ Mbacke ñu dugg tuuti ma laal la ci mbirum màggal gi gis nañu màggalu ren gi ak ak yi doon am yan moo moo dàq. man nag euh, sama gis-gis moom ak xam naa gis-gisu murit yu bari. Hmm. màggu ren gee daax waaw moom laa gën a gis sama bopp te xam naa ne ñi ma ñi ma ñi nga xam ne jaxasoo na ma ak ñoom tamit gis naa ne seen gis-gis tamit màggal ren gi ci lañ gën a sentir seen bopp. Euh, tiitaange gi ñu doon am ci mbirum màggal gi ci affaire Covid bi ak affaire yooyu mais gis nañ màggal ba mu passé laay affaire daal xaw a woyof na loolu daal. waaw xam nga mbirum sëñ Tuubaa moom moo demee noonu sëñ bi moom mbiram moom maanaam lu lañ laan lu mujjee ñëw ëpp ëpp ëpp ëpp la jàll. ëpp la wéy loolu moo ciy feeñ rek sëñ bi mooy wane boppam di wane boppam kennal gu ko yàlla kennal. ak tamit eh, mbiram maanaam lépp loo xam ne rek mbiram da koy gën a avancer ku ciy jàpp tamit yàlla day gën a avancer gisoo mbir mi ni mu gënee wàññeeku bu baax feebar bi waaw loolu moom wàññi màggal ge màggal ge ko waral nag lu ci bare bari waaw pas-pasu bi ci murid yi am ak eh, jullit yëpp sax wax pas-pas bi ñu ci am rek bu fekkoon ñëpp am nañ ko ci feebar bi rek sun borom dina gën a woyofal mbir mi bu baax a baax waaw jërëjëf suñu Mbacke ñu jàllu ci li nga xamante ne tey mooy actualité bi xew fii nga xamante ne Sénégal amoon na fi en 2006 ñu gisaat ko ci 2020 bi mu gën a xewaat li nga xamante ne tey mooy gaalu clandestin yi xale yi di ko tuddee mbëkk mi ñi ñaa ngi dem di ñàkk seen i bakkan mu nekk lu metti lu jéggi doyoo est-ce que loolu noonu seen gis-gis ci loolu waa suñ gis-gis ci loolu mooy xanaa gën a encouragé état bi tamit mm-hmm. ndax xam naa ne ñàkkul ne ñi ngi dox ay jéego ci jàppale ndaw ñi waaye xam naa des na mm-hmm. ndax xëy na mën naa am bu ñoom bu gisoon seen bopp bu baax a baax mm-hmm. kenn du dem di jël gaal di ci dugg ndax xam naa gaal xam naa diggante ngor gii rek xam naa ko dugg gore dem jël gaal ñi am na ñu bari ñoo xam ne seen rab ñemewu ko waxuma laa dëkk dëkk nag nga di ci dugg ba noppi jël sa xaay fay di ci ñàkk sa bakkan di ci daj ay coono yoo xam ne xay na maanaam ñàkk liggéey dana ko waral waaye nag ma di leen gën di ñaaxaat bu baax di gën a dolli sono Sénégal bi nga xam ne ñoo fi nekk ñoom ñu gën a xam ne wërsëg moom kenn ku ne fa nga nekk rek yàlla dina la ko jox bala ngaa faatu te nga gëm ne maanaam mën ngaa dem foofa sax te doo ko am ndax am na ñoo xam ne ren ji ci màggal gi jub si ak yeneen xew événement bi ñuy ñëw dañuy leb paas nga xam ne kon dem ci réew moom mu taxut a am xëy na maam gis-gis bi ak ñi gis ñuy dem di ñëw moo koy waral waaye ñuy gën di ñaax SONES Sénégal ak di leen gën di ñaanal di leen gën di wax ne ñu gën a bàyyi xel ndax bakkan moom daa foor ndax mën ngaa mën ngaa daggaleb tànk tey eh, doxe benn tànk di dund mën nga dagg bopp mën nga dagg asafura mën nga dagg loxo noonu waaye faatu moom day doon dernière chance boo xam ne moom ko xas def moom sa mbir foofu lay arrêté te daanaka boo gis-gis bi boo ko amee gis-gis bi ñu ci amee mooy xaru la te xaru ndax te yàlla moom nee na képp koo xam ne da ngaa rek boo dee doo dem àjjana laxaraaf ngay dem diggante àjjana ak sawara fa ngay ne doo dem sawara doo dem boo xëyee tey mu neex nga dem fee boo xëyee mu naqari nga dem fee léegi nag loolu moo tax daanaka xaru la ndax xam ne lii da lay raay ba nga ci de dugg loolu ak xaru la léegi ñu leen gën a encouragé di leen gën di ñu gën a bësanteeg seen xol xëy na maanaam am na ñoo xam ne seen rek bëgg leen a teral bëgg leen jàppale moo leen ci dugal ñuy ñaanal ñi nga xam ne nag ñoo fi jógee ñi nga xam ne ñoo fi bàyyi bàyyikoo faatu ci ndox mi yàlla yërëm leen ndax xëy na xëy na mën naa am gis-gis biñ ci am euh, jihaad mi ngi ci jihaad mooy dimbali say waajur tamit mi ngi ci xëy na gis-gis boobu ñu amee ngir bëgg tekki rek ak tamit jamono ji naqari naqari Sénégal fépp la sax adduna bépp naqari fi ñu toll nii waaye ñu leen di gën a encourage di gën a ñaanal néew yi nga xam ne ñoo jiitu yàlla yërëm leen ñi nga xam ne ndax néew néewum ndox ak néew biir suuf sax ñooy am suñu borom moom jëf rek lay fay waaw léegi nag ñuy gën a ñi nga xam ne ñoo fi des ñu gën a jàpp seen seen euh, seenum réew gën a jàppale seen kilifay réew gën leen a dimbali bu baax a baax ci liñ bëgg xëy na ñoom it xam naa du ñàkk ne ay jéego dinañ ko ci gën a doxalaat yoo xam ne dinañ bëgg nit ñi gën a a rassembler ba nga xam ne liñ bëgg ci ñoom dinañ ko am xëy na euh, président bi ñi mu àndal dañ ci def ay jéego yu am solo yoo xam ne dinañ toog waxtaan ndax xëy na neexu ko moom it xam naa neexu ko neexut benn kilifa din ñëpp a koy naqarlu ndax bakkan yi faatu dafa bari benn du ñaar te benn bakkan rek dafa diis ndax yàlla moom ne lu mu bind lépp doomu aadamaa ko ci gënal kon kon benn bakkan bu faatoo suñu borom sax diis na ci moom waxuma la nga xam ne ay nit mbindaafoon lañ ci suñu borom ok. mais da ngay gis ñoom da ngay gis ko xale boo xamante tey mën na liggéey ba am benn 500000 wala am benn 400000 wala am mu dem def ko ci gaal nga foogoon bu jural 500000 boo toog investir gis-gis bi ñu amee xam nga dañ naan tukki léegi daa jafe te da gis koo xam ne day lijjanti fi 4 million jox ko nit pour mu yóbbu ko mu tukki mu 4 million yi ñu lekk ko nga gis ñoo xam ne dañ ciy jaare dem tukki gis-gis boobu bu buñ ko amee rek maanaam ñi nga xam ne dañu yor 4 millions kon ñoom lañ war njëkk njëkk a alerte dal ci seen kaw maanaam ñoom ndax ki nga xam ne daa yor 500000 moom xëy na kooku dooleem sax bëriwul xëy na daa gis ay buntu yoo xam ne bu doon 100 personnes la mën naa 20 personnes yëpp dañ ciy jaar di def effort ba yàlla may leen ci ay buntu léegi nag gis-gis boobu ñuy amee nag xëy na moo tax ñoom it nag ñuy jël seen alal di ko ci def am na ñoo xam sax boo demee fi mu ay bor la ñu am ñoo xam ay bor dañuy leb seen yaay tegg ay natt jox leen am ñoom boolante loolu lépp da ciy am léegi nag moo tax nag mbir mu baree bari moo tax fi mu toll nii euh, ñuy gën di ñaanal te di leen gën di jàppale surtout seeni waajur di gën di waxtaan ak ñoom di leen gën di encouragé te xam ne àdduna dara jeexu fi te borom karaw gu ñuul liñ koy waxee di ko olof di waxee ñàkkul dara dañuy gën di góorgóorlu samp seenum réew gën a jàppale seen bi ndax fii liggéey bu ne lu fi nit jàpp rek yàlla mën na la ci fekk si waaw liggéey bu ne café sax da ngay gis ku koy jaay ba tabax ci kër man gis naa ko waxuma la leneen leneen maçon bi lu ne lu ne ngi fi waaye nit da jàpp rek bañ a dara ndax boo ko fi bàyyee ba dem bitim Espagne fu mën a doon da nga ci def da nga def yeneen liggéey yu gën a faible liggéey yi ne Sénégal te da eh, xaalis dong nga ci wut kon bay boo jàppee fii donte benn 2500 nga ci am nga gën cee jàpp. Mhm. gën cee góorgóorlu bu baax rek. te xam ne yàlla jeexul daal. Mhm. waaw nga xamante ne ñu ngi euh, ñu ngi bëgg a dem def seen xel yan conseil nga leen di jox yeneen ndaw yi nga xam ne demaguñu mais seen xel yëpp ngi ci nga leen jox ñoom. man conseil bi ma leen jox mooy képp ko xam ne yor nga 4 millions ba 500000. Mhm. nga investir ko sa sam réew liggéey. ndax fi mu toll nii li ngay li ngay li ngay jël di ko yóbbu foofa boo ko defee sam réew di nga liggéey ndax 4 million benn magasin boo ci tijji rek wala am na yeneen yu sew sewaan yoo xam boo ko ci defee yàlla mën na laa dimbali ndax li ngay séntu euh, suñ boroom mën na laa gën a jàppale ba nga xam ne maanaam li ngay ëllëg si biir lépp lépp lépp li ngay li ngay li ngay ut ci bii ak li ngay ut fee différence yi du du woote waaw waaye nit nag moom mooy xam li nga xam ne moo gën ci moom xam li nga xam ne moom moo bon ci moom bakkan daal du fo te bakkan du jaay képp koo xam nag mu ngi la ci digal di la ko digal dalay nax man de gratuite bu ma ko gisoon wala ñu fay ma xaalis du ma dem ndax ba géej moom amul bànqaas ni ñu koy waxee bu doon avion la sax wala leneen waaye nag nit daal daal daa baax te xam ne maanaam yàlla jiixul te yàlla ku mu rëdd saw jëb yi ne da nga dugg Espagne bala ngaa faatu da nga fa dugg boo doon raam bi da nga fa dugg ñu gën góor góorgóorlu gën a rassembler gën a jàppante gën a dimbali te xam ne réew mi ñun dong ñoo ko moom président yi fi nekk dañuy toog di dem rek ñun jeunesse Sénégal bi nga xam ne jeunes Sénégal yi ñoom ñoo moom réew mi ñoo war a gën a rassembler te bañ a feebalal seen réew ndax loolu ci feebalal réew mi ndax ndaw ñi bu ñu demee rek bu yàggee réew mi dara dootu fi des te ñi ngi faatu ñi ngi wàññi ko chaque at ay mu def ko 2005 ba ren ji xam nga li ci faatu macha allah dafa bari lool waaw ñu di ko naqarlu di jaale seen i mbokk di leen ñaanal yàlla yàlla may leen xol xolum muñ yàlla gën leen a dimbali bu baax a baax jërëjëfati di si jaale waale ki nga xamante ne mooy maam Thierno Birahim borom daamal daaru am na benn taalibeem bu ci nekkoon moom maam Ousmane moom tamit ci la faatu ndar la ndar ko jëlee woon di barki dem lañ ko mujjee indi si góor yi waaw di ko jaale bu baax di ko jaale képp ko xamante ne taalibe maam Thierno nga di ko daal jaale ñëpp jaale ci ñu ci loolu jaale ci li nga xam mooy fan yi changement gouvernement bu bees bi noonu ko gisee en tant que sénégalais changement gouvernement bu bees loolu moom naa am mm-hmm. daanaka mën naa ne chaque ay quelque ay at yu changé gouvernement baax na ci am réew. waaye nag ñi ngi ñaan tamit ñu nit suñ wàll maanaam li ñu ñaan mooy eh, yàlla na jàmm sax Sénégal. moom mi nga xam ne moo ko def. yàlla may ko ci jàmm ñi mu ko defloo ñoom it yàlla may leen ci jàmm ba nga xam ne ñoom ñëpp rassemblé gouvernement bi dañuy gën a dëgër. ba nga xam ne liñ ci séentu muy ndam. li nga xam ne moom lañ séentu pour sonné Sénégal ba mën cee gis seen bopp ñoom comme liggéey bi ndax bu gouvernement bi normalé rek ñoom ñu di gis seen bopp rek jéggi gaal dootu mën am. waaw loolu moom yaakaar naa ko waaye nag bu fekkante nag moom it dañoo jël lépp yamale ko seen boppit nit ñi dañuy dem uti beneen beneen côté bu ñu jaaree pour mën a a mën ut ut dara lu ñu jox seen i waajur ndax mënuñoo xëy fii di toog di bàyyi di bàyyi ñoom ñuy doxal seen mbir te ñoom seen mbir doxul léegi nag ni def ñu leen ñaan ñoom it xëy na ñu ngi ci on waaye ñu gën a jàppale sunu Sénégal bi gën a jàppale gouvernement bi ñu teg mu bokk ci bon gouvernement bi nga xam ne moo gën ci Sénégal yàlla gën a gën a dëgëral seen i xol gën leen a boole ñoom ñëpp ñu rassemble liggéey daal mhm. liggéey réew mi daal moo ñu intéressé du kenn du parti bi du parti bee mhm. ñu ngi ci da ngay xam ne yaa ngi yëngatu tey fayee ko salaire yaa réew mi ñor la salaire bi bañ laa ñor ok ah, li nga xamante tey mooy président France Macron defoon na benn toujours di continuer di caricaturer ki nga xamante ne mooy yonent bi mooy benn professeur bu dessiné woon benn dessiné boo xamante ne ni tey waxoon ne kii mooy yonent ba yàlla defoon ay xale dar ko ci rey mu ñàkk ci bakkanam mu defoon benn point de presse génn def benn sortie doon wax expliquer mu ne ñoom France pareeguñu pour bàyyi loolu ñu leen neex la ñuy toppee di caricaturer ki nga xamante tey mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey en tant que musulman ñoo lañ gisee loolu te nga xamante ni dëkk jullit lañ nekk ñun Sénégal ci benn sortie ñu tegoon ko loxo nag mais bàyyi nañ ko. Mhm. mais nu waaw loolu niñ ko gisee mooy maanaam loolu moom. Mhm. képp kuy ab jullit. Mhm. te yor bakkan rek naqari na la. ndax ñun amuñu lu yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam. ndax bu ñuy bindee moom moo tax. képp kuy murit di tijaan di laayeen fu mën a bokk rek. tarixa boo mën a bokk. naqari na la. ndax kenn pas-pas kenn du ko laal. te yónnent bi mooy suñ pas-pas. ndax ñun jullit yi bu ñuy roy référence bu ñu koy am lu ñu naan référence ci àdduna. mooy yónnent bi. yonent bi mooy suñu référence kon nag képp koo xam ne da jël sa bic wala ngay dessiné wala ngay kar kar ci di bind ci yonent bi sallallahu alayhi wa loo xam ne nekkul noonu ah de ñi ngi koy naqaru ba fa naqarlu yam te ñi ngi ñaan tamit yàlla na yàlla wàcc musiba moo xam ne ci ñi koy def ñëpp ba béraluñ kenn ni président euh, Mauritanie bi def nga xam ko naqari ba maanaam dégg naa dafa langage français da ko da ko interdit <laughs> Mauritanie ah, waaw loolu xam nga ñu nit bu ñëpp defoon noonu mm-hmm. suñ président bi ñëpp xëy na maanaam la tënk yi daa tënkul Sénégal xay na ndax réew yi yemuñu waaye nag ndax réew réewu Mauritanie dafa xaw a laal laal ci langage su mhm. dañoo xaw laal ci wetu yónnente bi daal côté boobu mhm. ci langa arabe ñun ñëpp pas-pas bi nag ñoo ko bokk li ñuy naqar it ñoo ko bokk mhm. waaye nag ñu ngi koy naqarlu ba fa naqarlu yam di jàng alxuraan ju bari képp koo xam ne ab julli la ngay ñaa jàng alxuraan wa quraan al fajr inna al quraan al fajr kaana masuuda dañuy jàng alxuraan ju bari di ko tari di ñaan képp koo xam daal yaa ngi jug dal ci jullit yi yàlla na lu metti dal ci sa kaw nañ fekk nga faatu faatuñ gu metti baa ñu fekk nga faatu ci biir oto ba sàppoor am ci aw yoon ñoo ngi ñaan daal képp koo xam ne yaa ngi koy def rek yàlla musiba dal ci sa kaw ñun daal lañ ci wax naqari nañu loolu nag naqaru nañ ko waaye da du naqar woo xam dañuy jug di yori ay yat wala ñu nekk ci mbedd mi di peuple bi comme ni ñuy def dañuy nawee naqaru sun xol di ñaan nag képp koo xam ne yaa ngi jug dal ci yónnente bi yàlla na yàlla def musiba moom fekk la ci sa kaw musiba moo xam ñëpp koy fe seere sa mbokk yëpp seere ko waaw ah, kay. jërëjëf sëñ Mbacke xam naa la amoon ci ay minutes jeex na waaw di ñaanal Sénégal jàmm ak salaam yàlla guddal sa fan yu tamit may la jàmm bu baax a baax a baax di la wax leen ngay tàggatoo mbokk mbokku internetu Dakar Midi xam naa ne dañuy tàggatoo rek minutes jeex na. waaw di leen ñaanal. ndax euh, moom ñaan gi moom day tàmbali ndax lii rek euh, ci ñaan gi la bokk. ndax lii dangay ngay liggéey ndax Sénégal leen tax a jóg ak jullit li ngeen fi wax lépp ci lislaam la jëm ak ci ci réew mi. kon ñaan gi moom yéen a njëkk ñaanal seen bopp ndax dañ na kuy def lu baax yaay ñaanal sa bopp ju màggalu Touba gi jàll noon noonu ngeen ko defee nen dañoo ñëw sama kër Gora ndeysaan film la fa nekk lépp ñu di leen ci ñaanal tamit di ñaanal bu déwénee yàlla gën leen a jàppale waa Dakar Midi ak Mak TV Sénégal direct ñoom ñëpp site yooyu yëpp ñoo ngi leen ñaanal bu baax yàlla gën leen a dëgëral yàlla gën a def ba xoli Sénégal yi nga gis ci àdduna bi yëpp si ñu gën a def ci seen i ñoom ci site yooyu balaa heure bi déwén daal yàlla na yàlla def ñoom ñu di leen dégg foo xam ne duñ fa déggee benn sit ndax ku feeñ ci mbirum sëñ Tuubaa feeñ ci mbirum yónnante bi moom sa mbir noonu la war a doxe da nga war a yëkkati ko ba ñëpp gis sax ñu ngi leen ñaanal bu baax a baax di kontaan seen liggéey rafet na mosuñu gis gisuñu ci lu débordé loo xam ne mënee su ko seetaan dañ ci gis loo xam ne chaque jour dañ koy suivre ci internet bi dama koy seetaan bu baax yenn saa yi maam yoo xam dañ ma koy yónnee dama koy xool bu baax wax dëgg yàllam ñu leen sant bu baax jërëjëfati jërëjëf